Seck moom la ñu dénk lu jëm ci organisation yooyee élection nag ne dina ko fexe amal ci anam bu jaar yoon moom jëwriñ ji nag di xam ne ni faaw rek ñu am confiance ci suñu système bi ak suñuy institution lu jëm ci wàllu chiffre yi nga xam ne rek moo jëm ci élection yooyee nag budget bu toll ci quatorze milliards dugal nañ ko ci nag juróom fukki junniy éléments yu force de défense et de sécurité nag ñoo fas yéene taxaw yooyee élection juróom-ñett yuy toftal juróom ci million ci ay bulletin nag ñu daal di koy séddale ci biir centre de vote yi moom nag ginnaaw ba ñu koy tuumaal ne dafay amal politique leeral yi nga xam ne rek directeur général des élections daal dina ko yëkkati fekk leen ko ci boobee yëglekaay jeu ouvert bu ñu sukkandikoo ci l'observateur bi nga xam ne rek am na ci élection yi nga xam ne bëri na les waxul loolee lépp yëglekaay bi dellu suwaat na ci moom yëglekaay bi nag dellu suwaat ci kan mooy Tanor Thiendella Sidi Fall directeur bu DGE mi nga xam ne rek moo fas yéene organiser yile élection Macky Sall ak Sonko yéenekaay bi di peeko duel par procuration duñu xamal fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne rek ci élection présidentielle yu ñu war a amal ni ki ëllëg ci dimanche ji nag rendez-vous bi nga xam ne nag moo jëm ci tànneefu juróomeelu président bi nag le quotidien yëglekaay dellu soit na ci ne juróom-ñaari million ci ay citoyen ñoom ñoo fas yéene dem ci mbañ gàcce gi nag ngir tabb seenu njiitu réew bu yees Amadou Ba Diomaye fay nag du duel de dauphin xalifa Sall ak Idi daal di cay topp nag ministre de l'intérieur di xam ne ne juróom fukk ak juróom benn ci téeméer boo jël ci ay carte électeur jot nañu ko retiré président bu Sénat nag ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne daañu amal ay élection yu leer vox populi dellu soir ci premier tour mbaa deuxième tour lu mu ci mënti doon daal électeurs yi fi mu toll ni nag ci ñoom dong la des ngir tànneef gi nag ñeent fukki candidat ak juróom-ñeent yi nga xam ne rek ñoom ñooy xëccu ngir doon jiitu réewum Sénégal 14 milliards moom la ñu dugal ci wàllu organisation bi nag lu ëpp juróom-ñaari millions ci ay électeurs fas yéene dem ca mbañ gàcce ya nag lu ëpp fukk ak juróom benn junni ci ay biro de vot nag ñoo nekk fii ci réew Sénégal juróom fukki junni ci ay policiers ay gendarme ak militaire nag daañ leen tasaare fépp ci réew Sénégal ngir bu ko defee ñu daal di sécuriser lii di vote bi ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ci ay observateur jamono ji nag déployé nañ leen ngir ñu daal di ñëw taxaw lii di élection yi lu jëm nag ci wàllu élection yooyee nag ñii di électeurs yi mën nañoo tànn ba juróomi bulletin nag ci fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nga xam ne rek ñoom la seen bulletin di nekk ci bureau de vote yi yéene bi ne démb rek lu ëpp ñaari junni ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay carte jot nañu leen retiré ñeenti junni ak juróom benn fukk ak juróom benn ñu daat leen di déposé bu ñu sukkandikoo ci waa daaf lu mu ci mënti doon daal doy waar la ñu nar a jëm libération dellu soit ci sénégalais yi nga xam ne rek woo nañu leen ngir ñu dem ci mañ gàcce yi dimanche bu ko defee ñu daal tànn nag seen juróomeelu président de la république nag muy guléet ñuy amal ay élection fii ci réew sénégal te ki nga xam ne rek moo di président sortant bi du ca bokk lu war a toll ci juróom-ñaar yu toftal ñett ci million ci ay électeur nag ñoom ñoo fas yéenee tànn ci fukk ak juróom-ñeenti candidat yi nag kan moo ci fas yéenee doon kii wuutu président Macky Sall buñ sukkandikoo ci les échos Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Sall ak Idrissa Seck nag di àddu jëmale ci expérience yi nga xam ne rek moo war a doon base ak principaux atu yi nga xam ne rek ci lañ war a tànnee njiitu réew lum ci mënti doon daal kàddu gu mujj gi moom ci askan wi rek la des bés bi le jour dellu si tey jii nag ci recommandation yi nga xam ne rek bàyyeekoo na ci jàngu bi ci bi nag ña ngay xam ne ne kenn warta woote nag ngir ab saako ceeb buñ lay jox wala ay koppar yu ñu lay neexalee te itam nag kenn warta tànn candidat yi nga xam ne rek foo leen fekk ci fitna la ñuy woote lum ci mënti doon daal ëllëg dibéer gi yemook ñaar fukki